Je m'appelle Abdul Aziz Sissé et je suis le secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle du Sénégal. Le projet bi dañ koy rafetlu ndaxte ba ñu fi en 2015 di présenter Fopika. ñu avons gëmuñu que ni financement bi possible parce que dañu doon wax de toute façon il Dakar rek ngeen di am cinéastes yi nekk Dakar rek ngeen di jox mais biñu démé petit ba ci processus bi bi Thiès proposer projet gis nañ ni projet bi amna solo et naturellement dañ ko financé et biñ ko financé ba première étape de formation la won pour former les yi qui xam dans le domaine yëngu cinéma audiovisuel théâtre euh, Ada ak cosaan ci mais en même temps deuxième étape bi mooy dajale leen ñu nekk plateforme ben mbooloo bi nga xam nous dinañu des di des xalaat mais en même temps di monter un projet de film ensemble de leen pour que nous menons des euh, Thiès ci monde cinéma bi mais mun ko dégg également ci aduna de manière générale. cinéaste sénégalais yu bari Thiès mais en même temps gis nañu ñoom sa neex gis nañu ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo fii mais li ñu bëgg rek mooy que mu bañ nekk juste ay acteurs mais que autour mu am ay techniciens yi réalisateurs ay auteurs yi nga accompagner pour que chaque fois suñu amee projet ñu bañ di soxla dem ba Dakar pour projet bi mun a aboutir et que ñu mun a des Thiès liggéey fii euh, defar fi ay film et que à partir de Thiès ñu mun leen dégg ci àdduna bi yëpp. plateforme bi loolu mooy mébét bi justement parce que bu ñu tegee plateforme bi dañ leen di jox jumtukaay yi nga xam ni dina war pour leen permettre ñu mun a liggéey su wax infrastructure technique loolu moo tax ñuy wax suñu ñu tegee jumtukaay yooyu dina leen permettre ñu mun a liggéey sans ñuy dépendre ci yeneen régions yi sans ñuy dem Dakar mais à partir d'ici ñu mën a def lépp lu ñu bëgg def ci cinéma bi ak audiovisuel. 1961 laa dajeeg Maguette Thiam mi am Colombe Vision. ñu nekkandoo lycée Alexandre Dumas avant mu tudd lycée Malick Sy euh, amoon ñaari salle cinéma yu seqoon suñu lycée dañ doon sàcc guddi daw internat dem di def cinéma xëy na loolu moo tax ñu mujj nekk cinéaste moom tam liggéey bu muy liggéey mu def ko. Benen bi ki des mooy ñu toog ni léegi cinéma bi mën nañu am formation Thiès ci région yi parce que man dama que gëm ni développement Sénégal développement cinéma bi day jóge ci régions yi dooru nous. feneen avons dañu yàgg négliger régions yi ci affaire cinéma cinéaste yëpp lañ doon nekk dina am ay cinéaste yu yeewoo Thiès ñu formé Thiès ça c'est extrêmement important et je pense que le fait que euh, Macky Sall ak gouvernement am ni fonds bi milliard depuis 2014 ren mu yokk ko milliards pour ay parce que les muy wax mooy defar ay film mais il faut Sénégalais yi di gis seen film donc il faut que le cinéma yi dellu si te loolu ñu ngi ci. parce que liggéey baa ngi door c'est pas parce que am nga formation def nga benn film rek que na Nous, ñu cinéma depuis 1972 te dañuy continuer di jàng di lire di gëstu am humilité woyof tooy di déglu nit ñi man bu persévérer euh, champion cinéma africain 2013 2017 je m'appelle Oumoussa Colombe Vision entreprise bu ci Thiès Colombe Vision dafa gis euh, culture bi lépp dañ Dakar peut-être am nañu acteur culturel qu'il faut mais dafa jar formation formation

c'est une première donc loolu ñu koy santé di ko gërëmee waa FOPICA ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci projet Colombo Vision bi. perspective bi la mooy tasaare lii pas mu yem rek biir Thiès mais tasaare ko ci biir yeneen région yëpp parce que bu ñu naan culture faw yeneen région yëpp jàpp si am na ñu naan culture moom mooy base peuple kon il est normal à ce que yeneen région yi aussi wane seen mën-mën je pense bien que lii tàmbale na Thiès mais Colombo Vision aspiré na à ce que ñu tassaré ko ñëpp japp ci tamit comme à l'exemple du Fopica ñu wax cinéma bir Sénégal té bolé boolewuñ ci Thiès bolé boolewuñ ci Thiès du tay démb la té yaakaar naa ni pilier yi ñu koy koy teg ndànk té te Fomecat manam formation bi moy premier Diego bi té aussi on espère dinañ am acteur culturel nécessaire yépp bir Thiès ñu japp ci ñu bistel cinéma pour comme gëna revaloriser